Sa Thiès xale baa ngi xëpp ndox gaa ndox ci yoon bi ci kaw oto bi ay lamb lamb ji du làmb ju ndaw Sa ay Sa Thiès xale baa ngi noonu moo daan nees daan Boy daan ki nga xam ni mooy Jordan Sa Thiès a ngi noonu gaa yaa ngi mbëkk léeg gaa yi mbëkkuñu léeg-léeg gaa yi mbëkkuñu ndeysaan tey làmb tey làmb am na lu ñu de am na lu ñu damaa war maasale wala damaa war a damaa war maasale wala damaa war a fomp maa ngi noonu tool yi na ci porte oto bi mooy seen komi am na lu ko tàllal si jaada la ne ko lii nag mu ne ko tegal waa ji delloo ndànk heure wàccam jotagul sacee sa ngi noonu ay lamb ak fas kanam gi réewul deful leneen ñu ne réew dugg ci tranquillité bu mat sëkk loolu laa gis ci moom Sa moom tamit ay lamb ay la Seck Maas arène nationale muy lamb ju rëy ak Reug Reug muy lamb joo xam ni maa ngi gis liiru maa ngi gis liiru ci porte bi liiru jaan muy lijjanti ñi war a dugg ak ñi warul dugg liiru jaan a ngi noonu di wax ak Père na ay saa kees ñu yëngal bopp bi ndeysaan ay làmb ay la cinq mars arène nationale ku xef doo gis de ndax ñaari ndaanaan lañu Sa Thiès ay secondes lay bëre bëre na fi combat dix secondes quinze secondes Sa Thiès musul bëre combat deux minutes kenn musu gis waaye ay Reug Reug ay xalab caaroy bi gis naa ko mu ànd ak Père Khadim kulifay numéro deux ay ndaanaani làmb ñaari xale yi ku ci nekk gox bi ngay bàyyee ci làmb lañ judd ci lañ judd xale yi ci làmb lañ judd xale yi Sa mu ngi wàcc oto bi Sa mu ngi woon oto bi ay Sa Thiès yaakaar yi Double Less ndeysaan ci ndaw ñi làmb di bàyyi xel la bokk seen daanaan la ay Sa Thiès ñu noonu di waat am na lu ñuy lu ñuy def ci suuf ndeysaan li ma leer mooy li ma leer mooy làmb jooju ku mënul xule ku ne dañ nettali ku dem bay saa te doo xule xuli géew la ñaari ndaanaan lañ ñaari bërekat ñu mën lu ñuy def Sa Thiès muy wàcc mi ngi bu ànd ak yàkkam yàkkamtiwul dara ngeen ci signature bu mag bi ci diggante Reug Reug ak Sa Thiès ndeysaan lamb lamb lamb ci àdduna bi yàkkamti ndeysaan àdduna bi yëpp di ko xaar la 5 mars arène nationale lay amee arène nationale lay amee ndeysaan ay lamb Sa Thiès a ngi wàcc àndut ak benn yaakamti nag jël temps ñu naan ko heure bi waaye làmb jeex a jar làmb ji jaral na ko mu perdre ay millions day ah waaw wàcc na nga jël kaala kaala gu weex teg ci baat bi dugg ndànk ak teg dugg na Sa mu ngi ci biir nañ dem fu ñu jaaroon bu leen waa kër Sa am na coow ci biti waa kër Sa Thiès ñoo ànd ba ci buntu làmb di xuloo <laughs> bés bee ko jar làmb jee rëy ndeysaan combat bee combat bee laaj loolu parce que combat bi ku ko gañee am na fu mu lay yóbbu ndeysaan boo gañee da ngay dugg ci biir bi ay pii carrément ci biir ci biir boo ko gañee dem fekk ji ñoom Modou Lo ñoom Eumeu Sène gone yooyu ay Boy Niang ku gañee làmb ji làmb foofu la lay xaar ndeysaan moo tax yëf xale yi yomb yombaluñ ko ndeysaan ay làmb la cinq bés la ci bésu làmb yi de bés bu mag la ci bésu làmb yi diggante Sa Thiès ak Reug Reug ñaari xale yoo xam ni làmb am na ci ñoom yaakaar trop ndeysaan Thank non pourtant xoolal bi stade bi ñu jógee stade ñoom ñaar waaw bi ñu noonu ah, man xoolal oto bi man Aliou moo ma ne fi nga jëm moo sori mais sinon gars yi maa ngi nii di ci biti sax mënuma ko xam nga dugg ne euh, mooy loolu la ñuy jàll. Eh, fii am na yëngu am na yëngu waa Kër Sa Thiès ñoo am waa Kër Sa Thiès ñoo am lu rek rek ci làmb am na lu mu taxaw waa kër Sa Thiès ñoo am luñ ko xëpp per Xaadim doon na wax loolu kon dafa mel ni xel mi dafa mel ni gisoon na ko dafa mel ni gisoon na ko diggante bi dafa jege diggante bi dafa jege bi Sa Thiès di dugg si sécurité bi dañoo waroon dox ci diggante bi dañoo waroon dox ci diggante bi am na luñ leen xëpp indi na coow waaye xam naa ni Reug Reug dafa ree yëngal bopp bi mel na yëf yi safu ko ay mbokam nag ñu ngi yëngal mu ngi ñibbi mu ngi ñibbi Reug Reug mu ngi ñibbi Reug waa kër Reug Reug ñu ngi ñibbi Reug Reug mu ngi ñibbi Reug mu ngi ñibbi dafa am luñ ko xëpp dafa am luñ ko waa kër Sa Thiès ñu ngi bëgg ñoom ñu ko xëpp ba pare réer ak génn dañ sécurité am na fi ñu war a bàyyi xëppante ay gàllankoor. loolu la ñu war a bàyyi xëppante gàllankoor ñu yàqu moo ko yàq la. ñu yàqu rek préparé permissive la ko yàq. ah normalement normalement. ñaari élément donc mënu ma leen leen jël bu amee comportement bi ñu war a man suñu toog fa lañ toog laxaat mi mënu ma def seede yëpp na ma lu ne ko dara parce que bëgguma yàq sa ñu ñëw sama bakkanu doom xam nga do ñu jox do ñu jox do ñu jox ñuy ñëw sama bakkanu doom xam nga dara lu may fay mais kon ñun ne lii dañ koy def kon li ñu pare woon la mais nag nit du loo may lépp nga jël lépp voilà mais calmez-vous rek calmez-vous ça calmez-vous ça non non bul ko ragal kay tout le monde door sama gaay est-ce que métier bi la bokk de bul ragal ni métier bi la bokk waaw waaw

Mouram mouram mouram Nadal ko waaw nadal

non non amuñu lu ñu wax man man man man non pour lan léegi léegi ñu xool li ma gëm ak li ma def yëpp mais il faut nga mag Thank you. mais yaa man li dama toog muy boobu Matar saa ñu bëgg a jàpp loolu may wër soo bëggee ñu dégg la damay sa bopp kay li nga soo bëggee gars yi dégg la bul génn dégg nga bul génn saa boo bëggee gars yi dégg la bul génn saa

xam na loolu waaw waaw waaw